ma direction dañoo fas yéene vraiment euh, fexe ba ñun acteurs yi ñu jege leen jege leen weesuwul nga fekk leen si seen bërëb kaay tey euh, ñëw nañu si Radisson Diamniadio parce que ñun ñu ngi Diamniadio ñoom suñuy voisin lañu euh, ñu xalaat ne. rafet na ñu ñëw wàcc si fii seet si leen parce que ñun ñoo leen jox euh, agrément bi depuis 2018 mais depuis 2018 ñëw ñu leen euh, euh, rendre visite ñu xam ndax ñoom agrément bu ñu leen jox pour cinq étoiles ndax ñoom service bu ñuy offrir service cinq étoiles la donc moo taxoon tey ñu defal leen visite surprise ñu ñëw ak vraiment police touristique bi nga xam ne ñoom ñooy suñu bras droit ñu ñoom ñoo ñu jàppale si liggéey bi ñu ñëw ak service régional de tourisme ñëw rendre leen visite xool seen chambre yi xool seen lal xool seen restaurant bi xool seen spa bi xool seen seen de sport et cetera pour xool ndax est-ce que clients yi les clients sont clients yi ñu ngi ci disposition yu baax est-ce que ñu ngi traité bu baax clients yi mais weesu weesoo clients yi tamit dañuy xoolaale liggéeykat yi mbaa liggéeykat yi ñu leen di toppatoo moo tax sànq laaj nañ leen liggéey jam ñaajo dafa sori yi souvent Dakar lañu jógee ñeneen ñi ñuy jógee Rufisque est-ce que am na benn oto bi nga xam ne moom mooy assurer euh, ne serait-ce que euh, le transfert ñu wax ñu ne waaw amoon na benn oto bu doon jógee dakaar ñëw Diamniadio waaye euh, ñoom. Euh, si seen pexe bëgg a dalal vraiment euh, liggéeykat yi dañu trouver am nañu beneen euh, deuxième oto bi nga xam ne dafay ramasser lépp lu lu lu wër Diamniadio pour que liggéeykat bi bu liggéeyee ba heure wàccam jot ñu mun ko yóbbu ba këram. comme ni ma ko waxee si nasaraan moom 5 étoiles moom 5 étoiles Miami 5 étoiles Japon 5 étoiles France dafa war a nekk 5 étoiles Sénégal parce que réglementation benn la moo taxoon ñun ñu ñëw bëgg xool ndax ñoom cinq étoiles bu ñuy wax bu ñuy wootee ñu ngi koy wuyoo. macha allah vraiment kontaan nañu gis nañu ne euh, suite yi bien fait chambre euh, euh, nga xam ne am na say chambre yi nga xam ne dañuy prévoir handicapés ñen ñi nga xam ne ay laago lañu permettre leen ñu aussi a loger hôtel nekk à l'aise donc lu ñu fi gis tey dal na suñu xel ñoo ngi ñaan yàlla vraiment les descentes qu'on va faire c'est les cinq étoiles étoiles na nekk vraiment même standard sinon même plus mm. pour que ñun aussi suñuy wax cinq étoiles nit su fi ñu xeeb nga xam ne fanaan cinq étoiles États-Unis su ñëwee Sénégal fanaan cinq étoiles mu xam ne vraiment c'est les mêmes commodités. du fi yem li moom li annonce la annonce la parce que euh, Sénégal am na 1342 euh, chambres te 1342 euh, hôtels loolu dul yomb waaye nag ñun si liggéey bi am na ñi nga xam ne ñoo ñuy jàppale ñoom ñooy service régionaux de tourisme pôle boo nekk boo dem am na ku ñu fa toogal ñu dinañu fexe même su nekkul directeur bi mooy dem si hôtel bu nekk mais ñu fexe hôtel bu nekk am visite. police touristique wala di nga am visite combinée police touristique ak euh, euh, direction de la réglementation pour bu fekkee yow am nga kayit ba pare ñu xool service bi ngay offrir ñu xool aussi euh, environnement bi côté sécurité bu fekkee amoo kayit parce que am na ñi nga xam ne am nañ seen hôtel wala ñu am seen agence de voyage wala seen auberge am ñu kayit ñu fexe ñu invité leen. ñu ñëw ut kayit comme ça ñu sécuriser seen investissement parce que doo jël sa xaalis tamit dugal ko fi nga xam ne yow suba su suñu vérifier amoo kayit ñu indi la jafe-jafe wala euh, kenn ñaanu ko euh, euh, mu am jëy si hôtel bi nga am problème donc moo tax ñu leen di invité képp ki nga xam ne dem nga ba décider que da jël sa xaalis dugal ko si hôtellerie da fexe nga jege service régionaux de tourisme ñu renseigner la kayit nga war a joxe yëpp ñu jox la papier nga légal waaw euh, euh, tourisme euh, dafa nekk li nga xam ne ñëpp a si war a bénéficier wu man nekkoon naa direction de la promotion balaa ma ñëw direction de la réglementation touristique donc le travail bu ñu nekk di def ak waa ASPT agence sénégalaise de promotion touristique li ñuy wax taamu Sénégal dañu bëgg fexe ba sénégalais yi ñi nga xam ne te dañuy bouse nag dem naa Algérie ma fekk fa benn car sans sénégalais yi nga xam ne dañu dafa defoon tourisme sénégalais dañuy bouse am nañu xaalis donc xaalis bu ñuy jël di ko yóbbu Canada di ko yóbbu Japon ko yóbbu nañ ko investir fii Sénégal yu bëri xamuñu Kédougou xamuñu Kaolack xamuñu Ziguinchor xamuñu Tamba donc ñun bëgg nañu invité sénégalais ñu dem découvrir seen cosaan dem découvrir seen dëkk dem découvrir li nga xam ne ñoom suñu yeneen yeneen euh, localité soo fa demee sax da nga yaakaar ne nekkoo Sénégal parce que hôtel bu ñu visité tey hôtel bët ñu andi la fii nga fanaan fi une semaine nga ñibbi sa kër da yaakaar ne Miami nga nekkoon donc lii mooy lu am solo vraiment ñu consomé tourisme sénégalais ñu visiter sénégalais yi seen vacances ñu koy passé fii loolu mooy tax sax ñu gën a xamante ah gën a gën a économie parce que Covid bi wane na ko bu amee Covid Covid bu mu ñëwee kenn mënul voyager Sénégalais yëpp fii la ñu defoon seen vacances ñu dañuy dem euh, les îles du Sine Saloum parce que tey c'est vraiment en vogue ñu bëri dañu doon dem Casamance à travers Cap Skirring donc vraiment ñun liggéey bu ñuy def nii ñun dañuy seetlu ndax liggéey bi ngay def yaa ngi koy teg si yoon mais am na tam yeneen direction si si si si ministère bi am na direction de la promotion touristique bi nga xam ne moom mooy jaay Sénégal am na direction euh, de euh, de des loisirs les autres bi nga xam ne moom dafay invité Sénégalais à travers des affiches à travers des leen pour ñu gën a di féexal seen xol parce que tourisme aussi euh, loolu am na solo ñu bëri ñoo ngi feebar tëdd si hôpitaux yi amaana suñu defoon tourisme loolu du am parce que stress bi dafa bari mais soo voyagé dem def week-end feneen soo ñibsee da ngay gis ne da ngay gën a feex donc loolu ak euh, direction euh, ak sab ko sab ko tam mu ngi def même liggéey ASPT donc direction yooyu yëpp suñu mën suñu demee boo boole suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu xalaat dafay permettre suñu ministère mu gën a présente parce que tourisme lu am solo la si si économie tourisme fu mu am rek dafay permettre euh, euh, euh, pêcheurs yi ñuy jaay ñuy def élevage ñuy jaay kuy jaay ñetti caaf mu jaay et cetera et donc ñun si loolu lañ taxaw pour permettre sénégalais ñu gën a découvrir Sénégal. ñu am mbégte tey di dalal délégation au ministère du tourisme gannaaw bi ñu bi ñu nommé monsieur Ba mu nekk directeur bu bees bu réglementation bi comme ni ñu koy waxee maanaam lépp li nga xam ne moo tënk hôtel wàllu hôtel donc moom moo ko féetewoo ci ministère du tourisme. donc ñu ñëwoon tey seet si ñu doonte visite bi xaw nañoo bett quand même waaye comme ñun ni ñu koy waxee tout le temps comme ñun ci li ñuy yëngu dañu nekk ñoo xam ne euh, dafa am lu ñuy woo l'esprit yes ay kan c'est-à-dire client bi ci li mu soxla rek dañ ko ci war a fekk day tax ba fépp fu ñu toll rek dañuy waajal lépp loo xam ne client bi dina ko yittewoo ku ñu seet si aussi ci visite yu mel nii dina fekk ñu waajal lépp ba boo ñëwee dinañ la mën a dalal won la kër gi dalal la won donc euh, lépp li nga war a mën a soxla ci kër gi won la kër gi naka la tëddee lan ak lan nga fi am Euh, éventuellement lan ak lañ la fi lan la lan la fas yéene defal pour que ce séjour doon séjour boo xam ne wax dëgg yàlla dañu naan li ñuy naan de mémorable moment da koy am ba saay soo demee foo munti toog fàttaliku bi day neex ci euh, hôtel bi bi nga bi nga bi nga ñëwoon euh, visiter. waaw ci wàllu kaaraange bi comme ni ma ko waxee gis ngeen ko seetlu ngeen ko ci buntu bi fële donc am nañ ay agent de sécurité yu fa nekk oto bi bu yegg see bala moo jàll barrière bi déjà dinañ ko inspecté xool ko ci kaw ci suuf ak ci biir ak ci biti. bu jàllee foofu bu yegsee ba fi client bi war a wàcce pour dox dugg ci hôtel bi am nañ fa scanner scanner boobu dafay permettre ñu xool lépp lu nga xam ne euh, client bi mu ngi ko mu ngi ko yore mu ngi ko enfin gànnaayoo bu ñu ko mënee waxee noonu te fekk na méngoowul ak lu war a dugg ci hôtel dinañu dinañu bu boobaa ñu mun a ñu mun a euh, jël loolu am fu ko denc ba saay su mu ko soxlaa mais lépp li nga xam ne matériel bu ñu fas bu warul mën a dugg ci hôtel la scanner bi dinañu may tey ñu mun koo gis donc ñu xamal client bi ne ko lii mën na ko yóbbu lii mën na ko yóbbu dañ koy denc ba saa suy dem kooku c'est par mesure de sécurité bu loolu weesoo am nañ ay caméra yoo xam ne aussi ñu ngi saytu lépp lu bërëb bi fépp fépp fépp mu munti doon ba mu des ci néegi parce qu'il faut que mu doon lu privé aussi donc mais tous les endroits publics donc am na caméra yoo xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy saytu ak euh, benn euh, nu mu tuddati service de contrôle boo xam ne 24 heures sur 24 ñu ngi jàkkaarloo caméra yi ak écran alors côté prévention maanaam bu fekkee bu pour bu fekkee ñaanuñ ko yàlla mais jëye bu naree am maanaam la daay wala yu mel noonu am nañ fi ay bouches d'incendie yu doy yoo xam ne mën nañ ñu jàppale tey ba fu mu tàmbalee war nañ ko fa mun a euh, fenk ba ba ba du jël ampleur bi ñu ciy ragal mu jël. comme ni ñu koy waxee aussi hôtel bi aussi mu ngi wuyu ci norme internationale nga xam client bépp buy dugg ci hôtel dañ la war a identifier donc dañ la war a mën a ràññee xam euh, kan nga ak fan nga jóge fan nga jëm ak luy say luy say tànk. donc boo xoolee ñun ñu ngi koy yombalal client bi depuis aéroport c'est-à-dire am na fiche ñu naan fiche de police bu koy jox depuis l'aéroport donc suñu chauffeur yi bu ko jëli jee dañ koy jox mu remplir ko donc le temps muy ci hôtel bi dina ko may mu remplir pour ñi nga xam ne dañu xaw a parce que comme ni nga ko xoolee hôtel bi fii dafa nekk hôtel ñu ci bëri amuñu jot boo xam ne dañuy ñëw di euh, bëriwul la ñuy ñëw comme vacances nga xam ne dañuy ñëw pour noppalu donc ils ont tout leur temps mais daal boobu boo boo xoolee fiche de police bi da koy permettre mu remplir ko ci oto bi bu ñëwee à la réception dina ko déposé ak passeport am bu boobaa dinañ ko mën a identifier xool ndax moom am na fi réservation ñu commencé ko traiter réservation en fonction identification boobu ñu ko defal noonu.